waaye far mu rëcc mi te it kazalika ñu xëy nekk ci ay yitte ak yitte yu bëri sax lool incha allah dama mujj dagg sax ni xaaral ma dugal ko ba la leçon bi jàllaat ba beneen semaine tax waaye ñu ngi jégalu bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal tawfiq sëriñ Sam abdourahman ñu koy nuyu sëriñ Sarr suñ Baye gay suñu jëwriñ di nuyu waa daara ji ñëpp rek yal na yàlla defal ñëpp jàmm defal leen sutura defal leen tawfiq ah yàlla yàlla eh, yokk leeru dënn it lokk ko mbokk daal yëpp bu ko defee lépp lu fi ñëw di xam-xam rek yàlla na yàlla def ñu mun koo jëriñu tey nag dañuy am tey ndeysaan dañuy am juróom-ñeenti baat mhm. ci musallasaat yi xarra xirra xurra mhm. xalm xilm xulmu sëbët sibt subt muy juróom ñeenti baat yoo xam ni jege yoo nañ lool waaye am jeu boo xam ni mu ngi si ci kàllaam arab yu njëkk am moom mooy xarra xarratun xirratun xurratun xarratun mooy tàngoor mhm. alxarru shadid xir mooy mar mar bu bëri xir ak xirra xurra mooy góor su jigéen xarratun tàngoor xirratun mar xurratun ngor gore as ngor su jigéen xalm mooy bënn bënn xilm mooy lawet xulm mooy gént xalmun bëtt bëtt ci der lay am xilmun mooy lewet xulmun mooy gént sëbt xam ngeen ko samedi la mhm. mhm. yow ma sabtihim asxaabu sëbt sëbt bis la sibtu dàll la wu reet daal loo xam dafa reet da koo solo sol ba mu reet subutu nag mooy gàncaxu sël waaye sab-sab xadara diman gàncaxu sën la gàncax gu ne ci diggu yoon xam ne saxam soriwul mhm. léegi nag ni ko borom musalla saa di indee comme almagribi moom ثت بأرض حرة معروفة بالحرة معروفة بالحرة فقلت يا ابن الحرة ارثي لما حل لما قد حل به من غزل لم جه ثت ونيكنا دلنا ونيك أي رجع ثاب ثاب ثوب من ثاب رجع بعدين في أقبله aqbala alqawm ila makanin ma saaba alqawm ila makanin ma fi rajaa dellu naa bi ardin xarra ci suuf su tàng suuf soo xam ne maarufatin koo xamee bil mar wu bëri fa qultu ma ni yabna alxurra doomu góor irsi jooyal li maa xat xàll bi li ma dal di wër ki bëgg ba yegg fii waaw ah, loolu mooy loolu daal daj naa fa lu mburu dajul ci taal dégg nga kay mm-hmm. ok di nga alxuraan sax xar da koy firi xaruur hmm? wala dhill wala xaruur su nga waxul xuruur waxul xiruur xaruur la wax xar wax mm-hmm. xarratun jamcu di nekk xarraat wala xaraar mm-hmm. دنيك حرات حرات جمع حرات لا نيك موي سوس سو خم دا ام اي خير يسو ينول هم يو خم ني دانيك سفر ويكو لك بو نيول ديكو حره كوك داي مانا تانغ بو فكنتي حره موي مار داغي ديك عربي دا رماه الله بالحره تحت alqirra bilxirrati taxta alqirra yàlla na ko yàlla may maru tàng jër yàlla na ko yàlla may maru tara tara tar ci tàngoor wu rëy rëy rëy uh-huh. kon gis nga bu dee uh, almagrib bi moom daf naan alxarratu alxaraara ci firéem walxirratu alxijaara والحرة المختارة من محسنات العرب ممحرة مرغزرة أي خير سو يطان فل كل سيريكو نحن دك بو خم دو بري أي خير مرضى في يوم لكن أيال كفا الحلم الحلم الحلم الحلم الحلم جد فالأديم حلم وما بقى لي حلم ولا هنا لي حلم مزغبت يا معذبي لكن جيم اك دال جيم اك جيم اك دال جد دونك منامي جد نيك لو ام نيك بات بو خامني دا فا اي مانا جدن جدن جدن تفري مام داي فري شانس داي فري واخ ku xamul foo hmm? jaddun day firi chance day firi maam hmm? day firi mbir mu dog du ne li muy firi dafa bëri moo de mooy kaw naan bi jaddin bi jiddin laa bi jaddin fa hal jiddun bi laa bi mu jiddin bi jiddin laa bi jaddin fa hal jaddun bi laa bi mu jiddin bi jaddin bi jiddin laa bi jaddin maa ngi ko jële ci sama ngóorgóorlu waaye jëlewu ko ci sama mayu maam fahal jiddun fahal jiddun ndax chance bi laa jiddin bu anutoot góorgóorlu bi mujj din jaadu na ndaa def jadd jadd day firi chance jadd ya juddu moom ne jut fi nu jut lu ci jaada ya jut tabel fal adiimu xamal ni sa der bële nga déndoon xulmu am na yàqu-yàqu boo xam ne bën bën la gannaaw loolu maa baxaali man de deseetuma xilmu génn nuk mënamuñ lewet deseetuma ci dara wala xanaa lii xolmu te génn gént neexatul ci man si parce que talatuma ko gént ci nelaw yu neex lay amee loolu kañ la am musribta ba nga fi jógee yaa muazzibi yow mi may mbugal yow yow mi ma mbugal yow mi mii di ma mbugal mhm. xalm muy firi bën bën ci der der bu bën bën bën goo xam ne ay saxa ko ci def yu demee nekk noonu sabtu sibtu sut waaw léegi bu dee ah, Abdul Aziz Baghdad mu ni ko li mu ko woyee moom mooy mhm, moom dafa ñëw daal di ni alxulmu alxalmu alxalmu suqbun fil adim bi waxee baatu xalmu ci araab mooy bën bën bu am ci der wal xilmu bu ñu waxee baatu xilmu min xuluqi karim dafa bokk ci jikko yi ñu tedd ñi mooy lewet wal xulm mooy mën ah. waaye nag gént fi naw min na im day nekk te neex bi sidqi moo xam gént ga dëgg la aw bil kasib wala fenn mu ñëw daal ni xasal bi kon ni daal ni sabt sibt sub daal ni xamittu yowma sabti xamittu ah bég sant naa nag yowma sabti keroog bisub samedi gaaw is jaa keroog ba mu ñëwee muhzi sabti ka nga bu ya dal yu jexé mu ala nabati subti ci gàncaxu sën ba fi ma lmustasadi jugee ci bërëb ba maanaam kay ba nga xamni bu jaxé la léegi mu am fi ñetti baat sept sept ak sept di bisub fet moy samedi sept di dal yu dox ba yu borom doxé ba mu raaw suttu di gantax gu sax ci yoon wala ci suufu tund motax tax euh, borom borom ba euh, al yi moom diko wena sept samedi dal xam ngeen ko yow mun uyida bis la buñu def muy bisu fet والسبت بوين كو واخا نعل دال لا وخا خامني حميدا سانت نانكو داخ نانكو دوخي دوخي دوخي دوخي دوخي دوخي بام بام ماغ والسبت بوين واخا سبت نك نبتم غانتاخ لو خامني وجي دا فيك نانكو في معبرين تي جيغي كاي وسبسبي ولا تيسن في معمرين في بلاص بو ني دكه وسبسبين ولا بلاصو سن boo ko defee loolu moom mu delluwaatu ci juróom-ñeenti baat yi nga xam doon nañ ko bëgg a indi ñu jégul lu baax ne ci xat xat yu tara tara tara maam ne ci ay aaju yu tara tara tara fi nit ñi waaye daal xam naa ñu ngi ñaan yàlla mu sottal balaa yàgg rek incha allah yéen yàlla dafa leen jàmm dafa leen xéewal dafa leen sutura tawfiq salaamaaleykum